bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa 'allamtanaa wa zidnaa 'ilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alhamdulillaahil lazii ahyaanaa baada ma amatana wa ilayhi nushur ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala noo ngi julli di sëlmal ci bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam réew mi fm 97.5 nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ci wàllum xaral gi suñu doomu ndey di jawoo jalloo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur tabaraka wa taala moom mi ñu may ñaari xéewal ya toll ni bu jiitu bi mooy jaamu yàlla ñaareel bi mooy xéewal bu aju ci suñu wirgu yaram jaamu yàlla ji nga xamante ne yàlla xéewalal na ko askanu jullit bi du mooy waxtu yu julli fajar bañ doon julli ci waxtu su néew ci ginnaaw ñaareelu xéewal bañu yàlla xéewalal mooy xéewalu dallu bi nga xamante ne moom lañ doon def ci waxtu su néew ci ginnaaw di nelaw benn bu ci nekk nag yàlla xéewal ko jaamaam yi waaye mu am xéewal ba mu jagleel képp kuy tudd baatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xéewal boobu mu xéewalal askanu jullit ñi mooy xéewalu aadaa'i salaatul faridatu subh mooy joxe faratay waxtu yu suba bi nga xamante ne muy julli fajar bañ doon julli waxtu su néew ci ginnaaw xanaa du bokk na ci xéewal yooyu yow jullit ba koy joxe ci jàkka yow jullit ba koy joxe ci mbooloo mi anaadu dina la doy ci seede yàlla malaaka yi di seede ci sa borom subhaanahu wa taala gannaaw ba yenentu bi waxee ci maana xadis ne yataaqabuuna fiikum almalaikatu bi leyli wa malaikatu bi am na malaaka yi ñëw di rond di leen nemmeeku ci di jël ci di ko yéegal ci kaw ñu di leen seede fa seen borom neena malaaka yu war a ñëw ci guddi ñooñu takkusaan lañuy ñuy wàcc ñëw fanaan ak malaaka yooyu noonu wàcc ci takkusaan fanaan ak yéen bi nee julli waxtuy fajar lañuy yéeg ci kaw ngir ñu dem rendre kont jëfu doomu aadama yi malaaka yu war a wàcc ci bëccëg ñooñu yonent bi nee na waxtu yi fajar la ñuy wàcc ci kaw suuf si ñoomit ñu yendoo ñun ci bëccëg bi be waxtu yi takkusaan ñu yéeg jëm ci kaw xanaa du ñaari waxtu yi julli ñi képp ku muy fekk nga taxaw ci sàppe si di julli waxtu yi fajar ak waxtu yi takkusaan képp ku muy fekk ci jàkk ji nga taxaw ci sappe bi àndandoor ak mbooloo mi bu dee malaaka bu ñuy ñëw dañ lay fekk nga taxaw ci sàppe si bu ñuy jëm tamit ci kaw dañ lay bàyyi nga taxaw ci sàppe si wala nga joxe julli ba noppi te képp ku nekk ci jàkka ja ba malaaka di yéeg ci kaw waxtu yi fajar dañuy enregistré turu ña nekk ñu seede leen fa seen borom subhaanahu wa mbokk yi dañ ne amul benn diine bu am xéewal bu ni mel suñu diine islaam waaye jaamu yàlla ju toll ni julli nag moo am seede ba malaayka yi di seede ña koy teewee ci mbooloo kon loolu lenn la rekk ci xéewalu jaamu yàlla bu toll ni julli ba ñuy ubbee suñu bés yi gannaaw bu ñu déggee noddukat bi muy noddu ba mu yegg fu ñu naan hayya ala salaa kaay ci julli ba leen di jokkale seen digganteeg seen boroom hayya ala salaa kaay leen rempli condition bi nga xamante ne moo war a nekk premier audience ba ngeen di am ak seen boroom hayya ala kaay leen ci julli bi nga xamante ne moom dong nga tax yàlla bindi leen ngeen ngeen ngir ngeen jaamu ko mu teg si ne hayya kaay leen ci texe ndeke texe dañ ko am ci fenn fu dul ci julli kaay leen ci texe bi nga xamante ne képp ku yàlla jàppandalal bem la boole si ñi texe ñi ulaika humul muflixuun moo tax nga dégg noddukat bi mu naan xayala salaa kaay leen ci texe yal ñu yàlla boole ci minal muflixuun jaalana allah wa iyaakum minal muflixuun amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot weneen xéewal ba ñu yàlla muy xéewalu nelaw bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala ñu bëgg a woon ne nelaw bi nga xamante ne dafa bokk xéewal yemu wàcceel doomu aadama yi wala dakaa wàccee ngir mbindaafoo ni mën kaa jëfandikoo waaye mu joxoñ ci doomu aadama bi mu ne ko man yàlla ma def nelaw ba ngay nelaw mu nekk dallukaay bi nga xamante ne doo am dallukaay bini mel ci fenn fu dul ci nelaw woowu est-ce que mën nañoo imaginer bu fekkente ne woon buur yàlla wàcceewul xéewal ju tollu ni nelaw a ah, xawma kan mooy andi xam-xam bu toll ni nelaw waaye nag du ko mën na def kom na ko buur yàlla xéewale jaam yi kon ndegem xéewal boobu yàlla ñu ko wàccel mu bugg ñoo wonne nelaw boobu ma leen wàccel du càggante rek moo tax ngeen di ko def du noppale ko rek a tax ngeen di ko def waaye nag dama kaa def ngir ngeen amee ci dallukaay bi nga xamante ni du ngeen amee dallukaay bi ni mel ci feneen wala ci leneen lu ci nelaw boobu moo tax mun nañu ci suuratu naba wa ja'alna man yàlla maa leen defal nawmakum nelaw ba ngeen nelaw subaatan mu nekk dallukaay ju mucc ayib dallukaay ju jekk dallukaay bu nga xamante ne doo mën a am dallukaay bi ni ci feneen wala ci leneen lu dul ci nelaw kon yàlla moo ñu wàccel xéewal bi ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ma yàlla xamal la kenn xamul moo ñu baaxee ne ñu képp ku jëfandikoo xéewalu yàlla jooju di nelaw boo ci noppee danga war a sant yàlla delloo ko njukkal waaye nag bul gis ne loolu ngay sant yàlla dafa am lu muy yokku ci nguuru yàlla dara déedéet bul gis ne tamit delloo njukkal ba ngay delloo njukkal yàlla dafa am lu muy yokk ci moom déedéet xanaa kañ a ah, boo ko santee ñu bindal la ko yiw boo ko delloo njukkal tamit ñu bindal la ko yiw waaye amul dara lu muy yokk yàlla bañ kaa def tamit wàññiwul yàlla dara moo tax ki yàlla doyloo di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi mu ne ñu képp ku jullit boo jëfandikoo xéwal bala yàlla yenkeewal mu nekk xéwalu nelaw boo ci noppee danga alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mbooleem xëytu cant yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo ma faat ci nelaw gannaaw si mu delloo ma sama ruux te ci moom dong la ñuy dellu keroog bu ñu tàqale kook dundu àddina si loolu mooy la ñaan bi di firi yal nañu ko yàlla déggloo yal nañu ko yàlla man loo amin ya rabbal alamin mbokk yann jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yéen a ngi fàttaliku woon démb buñ doon taxawande ki yéen ci suñu waxtaan bañ doon am ak yéen ngeen di ko wéttalanteeg ñun fii ci Rewmi FM 97.5 ñu ngi taxawoon ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa qaal li kulli nabiyin dacwatun mustajaab fa tajcalu kullu nabiyin wa inni axbatu dacwati shafaatan li ummati yowm alqiyaama yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp yonentu ba yàlla yónni ci xeet wi daka dakaa jox ñaan bi nga xamante ni mooy dernière occasion mooy ñaan ba nga xamante ni mooy sànni tàccoom mooy ñaan bi nga xamante ni du ñaan yàlla ci ñaan woowu lu dul yàlla dina ko nangul loolu mu ko ñaan te ñu bari nag ñaan nañu seen dernière occasion yooyu fii ci àddina waaye yonent bi man nag dama denc sama ñaan ba keroog yowmal qiyaama ma daldi ko génne ngir ma ràmmee ko sama jaami dimb falañu taxaw yonent bi nee na wa inni axtabatu daawati dama denc dama réserver sama ñaan bama ma yàlla jox mu nekk sama dernière occasion ngir ma ñaan ko ñaanuma ko fii ci àddina de dama kaa réserver denc ko làq ko fu kenn nag gis ñaan woowu ngir lan shafaata ummati ngir ma ràmmee ko sama xeet yowmal qiyaama keroog bés kon ñaan boobu yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngir keroog bispinc penc ñaan ko yàlla yàlla nangul ko ñaan woowu ngir mu ràmmee ko xeetam kon loolu day méngoog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rango garaat ba ka yàlla ne wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónni bi ma la yónni du lenn lu dut nga nekk yërmande ñeel mboolem mbindeef yi sallallahu alayhi wa ba léegi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne arrahimun yarhamuhum arrahman képp ko installé sa diggante ña nga ci kaw relation yërmande aji yërmande koor bu mag bi mooy ki lay nga dégg ci maana xadis bi képp ko installé yërmande jëmale ko ci ñi nga tane képp ku installé yërëmande jëmale ko ci ñi nga féete kaw waaye képp kuy yërëm ña la ci suuf yowit it aji koor bu mag bi dalay yërëm te kooku kenn ku dut yàlla subhaanahu wa kon yonent moo ëpp keneen ku moom yërëmande ci jaami yàlla yi moo ëpp yërëmande keneen ku moom ci xeet wi sallallahu alayhi wa ndax moom la yàlla tànn mu def ko rahmatan lil aalamin mu ne ko yërmande bi ma làmboo man yàlla tibbal naa la ci lu doy sëkk jox la ko ngir nga wesaare ko ci sama jaami moo tax yàlla ne ko wa arsalnaaka yónni bi ma la yónni du dara lu dul nga nekk rahmatan yërmande lil aalamin ñeel mboolem mbindee fi kon yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ne bépp yonent bu yàlla musa yónni yàlla jox na ko dernière occasion bi nga xamante ne moom la wara a ñaan yàlla ci dundam te lu gën a ñaan nañu ñaan yooyu fii ci àddina waaye man nag aa ah, dama denc sama bos dama réserver sama bos ngir ëllëg bés mañaan ko yàlla yàlla may ma ma ràmmee ko sama xeet ñi keroog bés pénc sallallahu kon ki moo ëpp mande ci xeet wi keneen ku dut moom sallallahu alayhi wa sallam tax na ñaan boobu yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg ñaan keroog bés pénc ngir mu ràmmee xeetam moo ne mooy ñaan bi nga xamante ne képp koo xamante ne dégg nga la jib ci nodd ngay wax ba keroog noddukat bi jeexal nodd ba mu doon nodd nga daldi ñaan allahumma rabba haadihi dacwati taamma wassalaati alqaa'ima aati sayidina muhammadin alfadilata alwasilata walfadilata wa darajatan caaliya rafica wa bacashu allahumma maqaaman maxmuudan lati wacadtahu innaka laa tuxlifu almicaad am na yeneen riwaaya ya andi yeneen ñaan bi nga xamante ne format bi tafa wuuteeg bi ñu wax ni waaye tuuti rek waaye lépp benn la yonent bi nee na képp ku wax ñaan wi médité nga sama ràmm keroog bis pénc moo tax mu ne fa hiya nailatun inchaa allahu man maata ala ummati la yushriku billah yonent bi nee képp ku war a sama ràmm keroog bés pénc ci ñaan ba may ñaan yàlla mooy képp ku dëxalanteeg man waaye képp koo xamante ne fas nga sa xol ci wéttal yàlla ci sama xeet faatu nga fekk bokkaalewuloo ko yàlla dara fekk bokkaalewuloo ko yàlla lenn yonent bi nee na su boobaa kooku ku médité sama ràmm keroog bés pénc kooku ki yeyoo sama ràmm keroog bés pénc sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne fa xiya ñaan jooju de am na ku ko médité am na ki ko yelloo am na ki ko yeyoo tamit moy kan naafiq bi déedéet bokkaalekat bi déedéet mooy kan bi déedéet kan la nañ leen bokk déglu la yonent bi ne kooku mooy ki yeyoo ki war bokk ci ñi muy ràm keroog bés moo tax mu ne man maata min ummati képp ku faatu képp ku deewaale ci sama xeeti fekk na bi doon dee fekk na bu ko dee di dikkal laa yushriku an bokkaalewul ak yàlla dara bokkaalewul yàlla ak lenn ci dara be dara booloo je yenent bi nee na kii mooy ki médité sama ràmm jamay ràmm sama xeeti keroog bés penc mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yéen a ngi fàttaliku woon keroog démb ñu ngi doon waxtaan ak yéen bépp yonent bu ñu jublu ngir mu ràmm ngir mu ñaan yàlla yàlla àtte jaami kenn ku nekk xam fi nga féete bu ñu demee ci yonent dañuy xool lañ jaarale woon seen diggante ak seen borom ñu daldi andi loolu mu nekk lay ba nga xamante ne ba tax na kenn du ñemeñ a jàkkarloog sa borom ñaan ko lenn waaw ñuy def noonu di dem di dem di gis suñu maam yonent yàlla aadam mu wax ñu lu ñu wax ñu ñëw ci yonent yàlla noox moom it mu daldi gantal gàntal ca la mu war a gàntal noonu lañ koy jàppoo ba ñu ñëw ci yonent yàlla ibrahim yonent yàlla muusa noonu la ñuy ñëwee ci yonenti yàlla isa alayhi salaam gàntal ba yonenti yàlla isa joxe comme gànt nag moom lañu leen bëgg a digtal bi iznillahi subhaanahu wa taala te yàlla wàccee ko ci alquraanul karim ngir xeetu yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa man see war a mën a njëriñu moo ne daf ne keroog bés yàlla day woo yonentu yàlla isa alayhi mu daldi ko laaj laaj bu toll ni lañ leen bëgg dégtal nii ci aaya bi borom bi da ko ne dane yonent bi salaa sallam fàttalekul keroog bés pénc bu ñu woowee yonent yàlla isa di sa mbokk ci yonent ñu ne ko wa id qaala allahu ya isa yow yonent bi fàttalikul keroog bés penc ba yàlla naree laaj yonent yàlla isa alayhi salaam yàlla ne ko yaa isa moo ne yow bin maryam yow mi di doomu mariyam a anta qulta linnaas moo ne xanaa ba xam yow yaa nit ñi ne attaxisuuni na ngeen ma jàppe wa ummiya ak sama bu jigéen ilaahi ni ñaari yàlla min dunillahi ñu wolis anaa du yaa wax li nit ñi qaal isaa ne haa yàlla subhaanak mboolem xeetu cellaange yu matali ñeel nañ la set ak cellaange yu kawe yow la ñu ñeel yàlla subhaanak cet ñeel na cellaange ñeel na la yow yàlla subhaanak tuddu naa sab sellaange maa yakunu li aa waruma man isaa de an aquula maa laysa lii bi xaq waruma may wax lenn lu du dëgg waaw dëgg rek a ma war te loolu laa wax sama xeet bu fekkente ne li ma laaj nag in kuntu qultuhu faqad alimta bu fekkente ne li may laaj de loolu laa wax sama xeet ñi yow yàlla xam nga ko taalamu maa fi nafsi yow yàlla yaa gën a xam la nekk ci sama jëmm ji waaw man de xawma dara li nekk ci sama jëmm ji yow yàlla lépp li nekk sama jëmm ji li feeñ ak lu nëbbu yaa ko gën a xam mu daldi di teg mu ne yàlla ne wala alamu ma fi nafsik te man xaw ma lenn ci sa jëmm ji waaw lottu naa xam la nekk ci sa jëmm ji yow yàlla innaka naka yow yàlla rek antal yow yàlla innaka li nekk anta allaamul xuyub yow yàlla yaaxam xam lépp lu fàddu nëbb ba léegi isa alayhi salaam mu ngi joxe ngant ca la yàlla laaj ne moone ne nit ñi yaani say xeet ñi ne jàppee leen ma ak sama yaay di ñaari yàlla ngeen bàyyi fi yàlla yonent yàlla isa daldi joxe proof ngant bu toll ni li mu wax ni bekkeroog mu ne yàlla ne yaa xam li sama te man xawma dara li si ci sama jëmm ji te tamit xawma dara la nekk fa yow yàlla waaw ndax yow yàlla dong yow tigi yaay aji xam kumpa lu nga xamante ni kenn xamu ko léegi yonent yàlla isa alayhi salaam mu di wax ne maa qultu lahum illa ma umirtani bihi an ibudu llaha rabbi wa rabbukum yonent yàlla isa ne yàlla ne waxuma leen dara lu dut lan ma digal ne naa leen ka wax te loolu du dara du leen lu dut na ngeen jaamu yàlla di sama boroom de seeni boroom te loolu nga ma digal loolu laa leen doon wax de waxuma leen jàppee leen ma ak sama yaay di ñaari yàlla ñu bàyyi la fi yow yàlla waxuma leen loolu de la ma leen wax mooy moo tax isaa ne maa qultu lahum déeti yàlla ma di leen wax lu dut illaa maa umirtani bihi lu dut lan ma digal ne loolu laa leen war a wax te loolu mooy lan ndigle boobu mooy lan mooy an ibudullaha nañ leen bokk ñu jaamu yàlla nañ leen bokk nangul yàlla nañ leen bokk wiital yàlla bañ kaa bokkaaleeg dara lii laa leen wax te yàlla boobu noonu nag mooy rabbi moy sama boro moo ma bind bind sama yaay bind juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf bind mboolem mbindaafooni te moom yàlla moo leen moom waaw kooku nag mooy wa rabbukum ba léegi ak mooy seen borom waaw yéen ci yàlla isa daal di wax li boroomam subhaanahu taala ba léegi isa ne wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim ba ma nekkee di dund ñoom ci jamono bu ma nekkee seen biir may dund ñoom ci zaahir ah loolu de seede naa ko xam naa ne ñama topp ñu may topp ci la leen woo di wéetal yàlla ak nangul la ñooñu ñooy ñama nangul waaye nag ah yàlla fa lamma tawaffaytani gannaaw bing ma faatee jili ma ci suuf ah foofu de yow dong yaa fi nekk waaw bi ma jëlee seen mbir nag yow yàlla kunta anta raqiba alayhim yow yàlla yaay ki nekk di fuglu seeni mbir yaa fi nekk di wottu seeni nekkin yaa gën xam lañu nekkee bi ma nekkee ci ñoom seede naa seeni nekkin waaye nag gannaaw bi ma faate ba nekkatuma di dund ak ñoom yow yàlla yaa fi nekk di xam lañu nekkee yaa xam lañ doon doxale yaa xam lañ doon jaamu ndax yow yàlla wa anta ala kulli shay'in shahid yow yàlla yaay aji xam ci lépp te yaay aji seede ci lépp li nit ñi di def wala lañ mbindaafoo ni nekkee yaay ki seede seeni nekkin yaay ki seede seen melokaan ak xaala bu ñu munti nekkee bi léegi yonent yàlla isaa daal di wax yàlla mu ne in tuazibhum boo leen mbugalee fii ci keroog bis penc ah fa innahum ibaaduk leen ne moo fi nekk sey jaam lañ yaa am sañ-sañ seen kaw loolen leen a def nag loolu yoo rekk yaa am sañ-sañ seen kaw waaye nag ah bi léegi isaa mooy wax na wa in taxfir lahum boo leen jéggaloo tamit ah yàlla loolu tamit fa innaka antal azizun hakim kon yow yàlla yaay ki noot yaay buur bu noot nit ñi ci lépp yay aji xerañte ci atte ba ngay atte sa jaami sa mbindaa fooni waaw lii la yonent yàlla Isaa wax buur yàlla keroog mu nekk lay joo xamante ne mu nekk preuve boo xamante ne isa alayhi salaam ba ko yàlla laajee ba xam yow yaane nit ñi ne jàppee leen mag sama yaay ñaari yàlla ngeen bàyyi fi yàlla yonent yàlla isa daldi di wàccee bu toll ni lañ leen jàngal nii ci aaya mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay nara jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañ si tànn la ci gën a rafet ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla ñu yàlla boole ci ñakay wéetal yàlla ñu yàlla wërsëgal làmmiñ ba koy tudd guddeeg bëccëg nasaluka ya allah an tarzuqana lisaanan shaakiran dhaakiran yàlla ñu yàlla wërsëgal làmmiñ ja koy sant saa su ne ci xëytu xéwal yam ñuy dottil waaye yal nañu yàlla may làmmiñ ja tuddu tudd yam tudd màggaayam ne yàlla ñu yàlla may xol bay xelaat kawteefu yàlla saa su jalla wa ala mën na ko sañ na ko yan ñu ko yàlla defal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 aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu